gens yoon ma bëgg leen wax ni suñu pétrole ak suñu gaz ak suñu zircon ak suñu phosphate amuñu ci dara ndax mbirum pétrole ak gaz lan la ci état di am suñu delloo ci contrat ñi ñett nga am bi ci njëkk mooy li wax droit yi société da société diw 30 capital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 parce que seen 90% vingt dix pour cent ñu fi deureum investir ñu fi ñu jox leen 90% ñu wëlbati ko dem jaay ko am ci ay milliards de dollars dem tok japp sen ñàmbur Sénégal tok di xol lolu mënon na régler problème yu bari ci suñu réew mi na ndaw ñi nga xamné ne liggéey ñaareel bi nga xamni ni mën nga ko cee am moy li ñuy wax partage de production li may wax ñepp ci contrat yi la te ku lire sama téere bi ma bindoon 2016 mi ngi ci moy